Sénégal loolu fi moom fii la toll waaw ñoo fekk la nga togg ñu la fa force nee na ñëw dugg ci oto bi nii nii nag waaw fii ci mm, mm, mm, terrain Ndoye mi la fekk daan ñuy jàpp waaw li may réew Macky Sall nag fii la réew mi tool waaw na senegal Sénégal gépp yëg adduna bépp yëg ku maa ngi biir oto police bi nii waaw maa ci biir oto police bi nii ñoo may jàpp waaw waaw mi ngi noonu nag waaw waaw bu da ngay def ndànk rek waaw. waaw dëkk boo xamante ne ñëpp a bokk ah ngeen def nit ñi di leen def loo xamante ne mooy lan. amul damay wax. damay wax du may bàyyi samay wax lu ma koy bàyyee. waaw ah, yow damay wax. naa toog jàpp sama bopp ñu ñëw ñu ne ma jubal nga yéen man defuma dara sëñ bi defoo dara sëñ bi dara toogal man kii li mooy lan sànni xeer yi defuñu dara ah? dañoo toog rek ah? ngeen nañu yéeg li mooy la bënalul sëñ bi toogal bul ñaan looy ñaan ni mais quand même yoroo xeer yoroo dara li ñu war a def dañu ko def mu mënuñu ci dara mu neex leen mu naqari leen Macky Sall sax mënu ci dara Macky Sall dara la ci mënul sacrement nag yéen waaw def lu leen neex nag lu leen neex ngeen def ko barke Serigne Touba dara lu ngeen ñu mënal amul dara nag laa la waaw